kon euh, mbokk téléspectateurs yi am mbégte nag euh, dellu seeg yéen ci seen ñaareelu xaaju émission bi di wareef ba tey ci télévision Futur Média xam ngeen ni nag mbégte la ñuy am altine bu jot ci waxtu wi dalal seen doom suñu doom caat Zey madame Ndaw tonton Abdou Aziz mais maa ngi lay ziar sukk bi doy na la yow kon doy na ma trop. Ah. <laughs> waaw ndax sukk bi moom vraiment <laughs> daf ma neex quoi. parce que soo bëggee mu ñëw ba ci yow de. non non nay foofu xam nga moom moom idée uh-huh. mais yaram aussi. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la moo tax sukk bi neex na ma. <laughs> merci taa dégg nga nuyu naa la. ah est-ce que surtout suku bi gënul gënul euh, mokk sa. waaw mais doo voilà waa baax na. <laughs> ni laa koy def itam dama koy yël soo yëlul doo am loo bëgg. Hmm. Ah. nuy naa tamit téléspectateur télévision Futur Média yi nga xamante ne suba bu jot ñu jàkkaarloog seen télé di seetaan wareef nuyu naa leen bu baax a baax ko ci nekk si sa tur ak sa sant. Zeyte du dégg bi fi ñuy duggee wala bàyyi ma joxe xaalisu guuf Futur Média. waaw joxel ba pare su ko defee nga ñëw. nga wax ah. parce que paquet yi. man sax dama am papa bu bees waaw waaw da nga am mhm. du tax nga am papa bu bees. tonton Abdoul Aziz mooy sama papa. Papa Ndiaye Lo dem ba Italie. Mm. ci télé bi laa yëgee ne dem ba Italie. nuyu TFM ba mu daj. da mm. naroon njëkkee ci man. Mm. tudduma taasuma. ah El Hadj yéen lay dégg. changé naa papa. da nga changé papa. changé naa jël naa jël naa ko de. <laughs> mu rattrapé wu. bu la suy ñibbisi. Italie bëri na cheveux naturel eh. mu jëndal ma dàll eh. jëndal ma saak eh. ak ay takkaay su ñëwee doonaat sama papa bu budul loolu nag moom su dul loolu nga jël tonton Abdou Aziz waaw ba tonton Abdou Aziz nee na jël na papa bi man coup d'état bi dama ko fekkee non non jël naa ko man <laughs> jël suy dee foog mu jënd ko dàll saak ak cheveux naturel waaw ak bijou waaw mu dul mu nekkaat sa papa waaw kon ko nuyuwuma kay te tàgguwuma <laughs> waaye xam nga ni Groupe Futurs Médias li ma leen ko waxee dafa ñëw ak ay xéwal indi nag ñeenti caabi jagleel leen ko yéen ñi ñuy seetaan lii lan la groupe Futurs Médias def ñeenti caabi waxoon naa leen ko les clés du bonheur la indi caabi mbégte ba tax caabi bu njëkk nee naa leen caabi koofa foor la leen groupe Futurs Médias njëkk indi pour ngeen gañe ko ci naka groupe Futurs Médias dafa jël 25 millions def ko ci koofa foor ne leen bu ne dinaa ci génnee 300000 ñuy gañe mille francs par jour su doyul rek ñu dolli xam nga caabi boobu kon caabi mbégte mu rëy la. ngeen defe ni foofu la ñuy yem GIE 300 milliards ngi ni nii la rek bés bu nekk rek mu am ku ko gañee jàppal bu Futurs Médias 300 millions yooyu gis nga ko tey am na ku ko war a gañe ngeen defe ni foofu la ñuy yem ñu indi deuxième caabi ci nam bu Futurs Médias nee na bi nga xam ne moom la xale yu bëgg yu bees tàq tàq tàq tàq dajji ci mbuus chaque semaine ngeen gañe benn scooter wax leen man naka nee leen léegi soo ma dégloo ma wax leen naka ngeen di def ba gañe ko xanaa loolu du ñaareelu caabi bi scooter troisième caabi bi groupe Futurs Médias <laughs> man daal xare ngi ci groupe bi ah ngeen di ñu liir di ñu déglu di ñu seetaan loolu la yàlla def ñetteeli caabi bi xam ngeen lan la dañu indi caabi oto bu ñëpp bëgg oto bu bees tàq bi xew ci jamono di Peugeot 3008 cross over Peugeot 3008 cross over moom la ñu indi ñetteeli caabi bi waaye ñeenteeli caabi bi nag tonton Abdou Aziz ma faama foog nga laaj ma lan la. mooy ban. kër. laaj ma fépp. fan ci diggu Ndakaaru ci VDN bi. mu ngi nii gis nga ko gis nga fii may dugg di ko visiter. nee naa la appartement meublé bi cité Tobago bi ne ci gis nga ni ma tiitee fii ci ci ci ci ci kii bi. lii kii mos koo gis. waaw fi mu ne nii ay escalier nga yëngu. ay escalier laay yéegi ak i tëj bunt. ndax tamit man balaa may wax dara foog foog ma dem xool ko te li ma gis daf maa yéem. gis nga ko dama koy visité nii waaye yi xeetu duus ak yi xeetu néeg ak yi xeetu waañ mais dafa am ah xoolal ñëpp équipé bi nga ñëwee dugg mais am na fooy bës mel ni loolu ay bés rek mu ngi nii gis nga gis nga duus bi ay ay bouton la da ngay bés rek amatul këcc loolu jóge na fi lu hmm? ñu tabax kenn musu gis tonton Abdou Aziz gis nga waañ bi gis nga waañ bi gis nga am bale xoolal fuyu bi équipé yëpp équipé nee naa la appartement grand standing ca cité Tobago euh, construit par Benja lii la groupe Futurs Médias indi ci diggu VDN bi gis ngeen ko lii nag ñeenti caabi yi laaj ma nag ku ko bëgg a gañe nooy def dangay da cle envoyé clé CLE clé ci 26 444 message al téléphone boo mën a yore message vingt al clé 26 444 2 6 ñetti 4 wala boog su fekkente ne mënoo SMS mel ni toto Abdou Aziz da ngay téléphoné. 88 628 03 03 88 628 03 03 wala boog nga wootee ci 88 628 23 23 tonton Abdoulaye xanaa li mooy rombati rëccu yéexati ñàkk. Mhm. Ah? ah ñàkk ko def erreur la de. ah, ah? xam naa ne ci day. Ah? lu am solo la. ah ma ne kër gi ma visité yàlla bu ma ci mucc. nee naa sama askan yëpp ñu joué. <laughs> sama askan kon sëy duggal ci thème bi tey. <laughs> <laughs> waaw yéen a ngi nekkoon ci point bu bu bu am solo ta dégg mm-hmm. euh, ñàkkum am doom ci couple jeune. Mm-hmm. et la plupart du temps ñu koy ñu koy teg ku jigéen ki mm-hmm. Papa Ndiallo dafa mës a wax benn wax bu am solo ci biir ci biir wareef. mu ne euh, sëy doom bénéfice la ci. bañ koy takk waxaalewuñu doom. ba tax na. sénégalais yi comme ni nga ko doon waxee sànq rek dafa mel ni à chaque fois dañuy tànn ci fan la ñuy gëmee yàlla. Mm-hmm. su fekkee ne ñàkk doom euh, feebar la ci nit. Mm-hmm. góor day feebar jigéen day feebar. dëgg la mais à chaque fois dafa mel ni. jigéen mm-hmm. mooy ki nga xamante ne moom kese moom moo war a jóg. yenn saa yi góor dina feebar sax te du ko xam. dina yàq jabaram lu ne. dëgg la ndax amul doom. te yàlla woo yàlla ndeke affaire bi moom la. te en tant que jeune nag yenn saa nga gis ay couple yoo xamante ne. dañuy dund lu metti tata mm-hmm. ndax da ngay dugg ci sëy rek mm-hmm. ñëpp di la xaare doom dëgg la di la xaare doom yow déjà soo njëkkee fóot mm, fóotaat fóotati mm. yow ci sa bopp sax dañ lay teg pression ba nga xamante ne mm. yow ci sa bopp yow yaay commencé stressé mm-hmm. te kenn waxagul la dara weer yi di jàll mm-hmm. muy gën a metti mm-hmm. sa jëkkër commencé di ko seetlu su fekkee da ngay sëy kër gu mag ñu commencé di la seetlu te taa déggan lu ne di nga ko dégg yàlla bul am nag ay wujju peccergo wala ay njëkk yu nekk ci kër gi am ay doom te taa déggan mënoo yónni xale xam nga dafa di ay affaire yoo xamante ne daal métti na trop ci xale point bi may wax rek mooy ni ngeen ko waxee tata dëggeen lu tax toujours rek mhm. ñu naan jigéen bi la mhm. te pourtant góor dafay feebar mhm. euh, docteur euh, nu mu tuddati euh, Jeanne invité woon nañ ko fi ah am na daal ay mbir yoo xamante naa daa dëggeen war nañ ci def attention góor dafay feebar jigéen dafay feebar ñàkkum am doom mën na jóge ci góor mën na jóge ci jigéen balaa ñoo wax daal dañuy saytu dëgg ba xool ba xam lan ñu saytu ba xool Toto Abdou Aziz ma fama sama doom lii la indi ba tey génn néeg bi waaw xam nga moom euh, analyse bu scientifique la def. Mm-hmm. daf ni góor dafay feebar jigéen dafay feebar. Mm-hmm. te affirmatif góor dina ñàkk a bañ am doom. dëgg la dëgg la. mais ci bala ñuy dab nit moom la. Mm-hmm. day fekk ku jigéen ki sonn ba xëy na sax du ko fa fekk day dem. dëgg la. parce que tuuma ji day méttee métti ba. day dem dëgg la bu takkee keneen ñëwit mokkam yi nañ koy dimbalee di ko yiir mm. yiirewuñ ko ko jigéen mm. cest à ci wàllu sëy mm. ñàkk doom dan ci victimiser jigéen mm-hmm. ba xam ni moom bu ñëwee ci kër gi rek mm-hmm. boppam mooy war naa fay am doom dëgg la donte feebarul mm-hmm. jëkkëram feebar na war naa fay am doom donte moom sax dafa feebar te yëgu ko première occupation mooy naa am doom dëgg la ba tax na boo ko amul coono commencé waxuma sax ci nit ñi ba ngay génn mais yow buñ la deful tuuti rek. Mm. dootoo nekkati nit. dëgg la dootoo nekkati nit. ci stress. dëgg la dootoo nekk nit ci sa physique. dëgg la parce que am na ci ñoo nga xam ne mën nu supporter stress. Mm-hmm. mais am na nga xam ne buñ ko dominer. dëgg la ci seen yaram. dëgg la ci seen nekkin lay doon. dëgg beneen bi ci sa bi gën a traumatisant. Mm-hmm. mooy l'entourage immédiat. Mm-hmm. parce que ñun suñu as suñu suñu euh, ci ñun suñu aada ak cosaan. sëy bi ramification yi cest à mu dugg dafa bari. dëgg la papa yaay. dëgg la njëkkee. dëgg la koñ bi doog ñëw. dëgg la mbokk yi doog a ñëw. dëgg la sa waa kër doog a ñëw. ñëppay sëy ñëppay sëy. tout à dama bëggoon ñu taxaw tuuti si stress déjà. Mm-hmm. ni mu nekkee facteur bu mën a bloqué nit. ndax léeg-léeg dinañ ci ñëw moo tax ma ne ne dinañ fi invité benn médecin. justement sûrement mercredi mu euh, euh, wax ñu. parce que bëri nañu bëri ñoo xam ne dara jotu leen mais stress moo tax sax mun nañu am doom. Mm-hmm. day nekk ci ku góor nekk ci jigéen parce que suñu société bi facteur stress yi moo bëri. kon kii nga xamante ne yow yaa ngi doog a dugg ci néegu sëy nga ñëw gis milieu bu hostile facteur stress la te fii nii da ngay gis sëy déjà ni ñu lay euh, xaxaree di la ko xarabee nga dugg ci léeg-léeg julli jóge seen kër ñëw fekk fenn foo xam ne bokk leen éducation xam nga bokk leen defin stress boobu rek dina tax jigéen du mën a am doom waaye góor tamit ci jamono ji yaa xam chômage yaa xam attente bi nga xam ne ñu ngi koy xaar parce que pour ñoom soo amul euh, euh, doom doo góor waxin la déggin la laaj stress boobu rek war na tax ne euh, ovulation ak du du du mën a accompagner. justement mais mais Adja Degen Adja Degen dafa mel ni sage-femme nga ko ah loolu laa de damaa xarañ de. parce que man man ñimeetuma laa. dégg nga xarañ man ñimeetuma léegi tuddee ma xarañ. jàll waaw xarañ voilà <laughs> léegi Adja Degen. da nga indi environnement bi nga xam ne ci la jigéen ji nekk. Mm. gis nga takk. solennité bi ci takk. Mm-hmm. mën na stressé nit. dëgg la bari na xale yu jigéen yu nuy takk. Mm. un mois avant ñu ñuy takk ni ñuy mel. Mm. bis bu leen di takk da ngay gis ñu wàcc carrément. te jeex takk takk yureeku. yureeku dëgg la. bu njëkk bi mooy wax ji. Mm. parce que am na ñu ko mun supporter. dëgg la deuxièmement mooy tu vas vers l'inconnu cest fi nga jëm. Mm-hmm. xamaguloo fa dara. loo fay fekk dëgg la. ñetteel bi ci des li ñuy xaar ci yow ndax mat nga ko wala matuloo. dëgg la interrogation yooyu. penc mii teg ci yow. dëgg la loolu rek jar na stress la. dëgg la ñu ni dañ la yóbbu nga sëy mm. une semaine durant. Mm. gis ko la wax kër goro ni mm. gis ko la wax kër goro mu neexee. dilemme boobu. dëgg la jiixi jaaxa boobu ñu lay def. dëgg la dina tax nga stress. dëgg la ñun la tey lan la yóbbu nga sëy Adja diggéen étape. bu gën a stressant boobu étape amul. dëgg la. da ngay jóge tey jii sa kër yaay ak sa kër baay mm-hmm. fii nga jëm dee la fay jëlee mm-hmm. xoolal boobu ñu lay wax mm-hmm. préparation psychologique te xamoo lay fekkee dee la la fay jóge quelles que soient les épreuves na nga ko fa muñ parce que dee la fay jóge bàyyi ni la fii nag am na këru sëy waaye amul këru fay boo fi xasee ba dugg boo xasee ba génn fii dootoo fi duggaat dootoo fi duggaat xoolal boobu baat dëgg la même si dafa laaj jéggin terme bi sa chargé. Mhm. dootoo fi duggaat dafa chargé. dëgg la yab bi ak yab biñ la yab bi ñu teew la ci biir ah. témoignage yi doog a ñëw. sa ndey jii de li mu fi daj. Mm. lim fi wax. Mm. ba mu fi ñëw sa baay amul woon dërëm. Mm-hmm. moom la ànd ak ba lii fekk ko mm-hmm. li mu jaar ak li mu muñ. sa charge émotionnelle charge émotionnelle bi doog a ñëw. nga ñëw ñu ñu la. ñu pousse la indi la ci biir kër gi. dëgg la waa koñ bi ñëw. Mm. le terme xaxar bi nga wax. le terme xaxar. Mm-hmm. jëlee ki ci ligne. non Zey da koy jël sa papa ñëw ci xaxar. <laughs> waaw xaxar. <laughs> allo allo oui. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam Zeynab. waaw na nga def. comment vous allez va et vous. ça va nous allons très bien et vous. bien merci alhamdulilah. vous nous appelez euh, maa ngi lay ziar. maa ngi lay maa ngi lay ziar bu baax. c'est-à-dire man maa la woon la dernière fois maa la envoyé woon mail bi sur euh, la socialisation des enfants j'espère que jot yokkal yokkal baat bi. man maa la man maa la envoyé woon mail bi la dernière fois sur la socialisation des enfants. dëgg la dëgg dëgg la dëgg la. voilà en fait euh, dama bëggoon participer ci émission bi. ñëpp a ngi lay déglu. dama bëggoon rek euh, caler sama analyse sur sur trois points. Mhm. comme ni ma ko defee woon la mhm. bi xam naa ne. Sénégal amuñu trop culture boobu. Hmm. mais moi je crois que c'est important. mu di ñuy jéem a def euh, ce qu'on appelle euh, la visite prénuptiale en la visite prénuptiale. Hmm. maanaam wisit yi nga xam ne dañ koy def balaa ñu dugg ci néegu sëy muy aji ku góor ki di aji ku jigéen ki. aha en fait c'est juste pour prévenir euh, certaines complications si si on veut faire des enfants. dëgg la parce que parfois am na nit ñoo xam ne duñu compatible. dëgg la mën nañu bëggante sëy et tout. mais duñu compatible. seeni ñaari deret du duñu mën a am doom. voilà ñu mën a am doom. parce que ci point boobu dama lay jox exemple bu ndaw rek man dafa am sama benn oncle. Mm-hmm. dafa sama rakk papa moom sama papa ñoo bokk benn papa. dafa mm-hmm. marié woon benn nit. ñoom mm-hmm. ils ont fait euh, quinze ans de mariage amuñu doom. bi ñu bi ñu divorcé. ñu am problème ñu divorcé ku ne sëy de son côté ñu am doom. am ay doom dëgg la. voilà effectivement loolu incompatibilité entre deux personnes moo koy andi. mën nga bañ concevoir d' donc loolu c' important. c' est amuñu culture boobu. dëgg la amuñu culture boobu. c' est important je crois que c' voilà deuxième point bi. Hmm. loolu mooy avant. Hmm. dafa am pendant le mariage ak bu fekkee ne après problème yi dafa am. Mhm. pendant mooy bu fekkee ne couple bi defuñu loolu. Mhm. ba ba sëy nañ fekk mënuñu am doom. Mhm. foofu bu fekkee ne mënuñu am doom problème bi daal di am parce que ce qu'on appelle le regard de l'autre. société sénégalaise en fait. ku ne xam na ne lu est très important. c'est-à-dire nekkul une société boo xam ne nii da nga naan je vis ma vie comme je l'entends. kenn beneen nit bi ni lay xoolee. Mhm. loolu dafa am solo. le regard de l'autre. dañ waaw donc da ngay gis ne nit bu feyee amul doom rek ñu commencé di ko stigmatiser. Mhm. aussi bien si góor gi ko si jigéen gi ñu jéem a chercher le pourquoi. Mhm. c'est-à-dire duñ bàyyi le couple ñu jéem a régler seen problème xoolal moo tax ñoom mënuñu am doom mais déedéet ñeneen ñi ñoo fiy nekk di wax te wax boobu après mën na indi ay crise d'angoisse. ce sont les day indi ay perturbation mooy mooy tax nga gis jigéen gi après di def lu dugg fi lu ne dem di wuti ay sëriñ par ci par la mhm. yooyu indi ay problème beneen exemple bu ma lay jox rek pour confirmer sama argumentaire. Mhm. gis naa ku ci dem wut ci ay ñu jox ko ci ay camp par ci par là yàlla foofu la ko jaaralee ba mu ba mu ñàkk si bakkanam. Mhm. xam loolu tam dafa dégg il faut ñu xoolaat ko. dëgg la donc je crois que société sénégalaise comme ni ngeen ko doon waxee semaine dernière rek. jikko yi. jikko yi il faut il faut ñu xoolaat ko. dëgg ngay xoolee sa morom c'est important. Hmm. parce que chacun chaque a beau dire mois je di ma vie comme je l'entends. Hmm. mais amul kuy vivre sans nga xalaat l'autre. Hmm. amul mu nekk Afrique mu nekk Europe mu nekk feneen ak feneen ak yam ku nekk sa prochain dafa am importance ci li ngay def. dëgg la. waaye donc man dama dama bëgg ñu ñu xool conséquence bi ñu mën a am après sur la femme en question. dem na ba elle dem nañ ba c'est des personnes yoo xamante nii dañuy dañuy dañuy vivre dans la solitude. Mhm. dem nañ ba bëggatuñ dem sax ci ay xew pour pour fuir les commentaires des autres yooyu dama koy gis man. Mhm. ñoo xam ne dem nañ ba ba ba ba ba bëggatuñ dem sax di génn voilà ñu ñu leen joxoñ comme on dit xam nga. c'est vrai ba pare stress boobu nga wax c'est très important. Ah. stress mhm. rien que stress mën na tax doo concevoir. déedéet man dama la jox exemple man bu ma amee sama benn doom ba pare. je suis restée trois quatre ans. Mhm. cinq ans doon defoon defoon contraception. boo mhm. nee bëgg a concevoir le deuxième. Mhm. j'avais du mal. xam nga contraception ak ni ñuy def. donc j'avais du mal à un certain moment j'avais un peu ma dem sama gynécologue mu expliquer ko. ma njëkk a wax mooy def lu ma njëkk wax rek avant sax mu naan man analyse wala lii. détendez-vous madame la ma njëkk a loolu la ma jëkk wax daf ne ma franchement la première chose bu ma lay wax mooy tout le temps rek. na tax. doo doo gaaw concevoir xam hmm, donc hmm. loolu xoolal loo rek. dëgg la loolu ki ma ko wax dafa daf ko jàng. dëgg la son domaine daf ko jàng ba xam ko doog may wax loolu. donc nañu bàyyi nit ñi ñu ñu ñu vivre dans la paix. jërëjëf jërëjëf jërëjëf baaxul. stress da lay yàqu gis nga ñun ñuy nekk fii nii parfois ñu stressé on le vit mal parce que déjà nga sori sa tabeeg yooyu rek déjà tu le dëgg la nga bëgg si boole nag nga am problème keneen di la indi di la waxal. parce que stress problème yëpp stress a koy indi. voilà problème yëpp stress a koy indi. malade yëpp stress a koy indi. Mhm. jërëjëf Zé. waaw te da ngeen ki li mu wax ci kaw ba ci suuf. Mm. lépp am solo. Mm. xanaa ñëwaat ci premier point bi mu doon wax nga xamante ne mooy euh, visite prénuptiale yi nga mm. xamante ne bépp képp euh, koo xamante ne dangaa bëgg dugg ci néegu say wax nga koo mën a def. parce que bu weesoo sax xool mbirum ndax mën ngaa am doomam mënoo ko. Mm-hmm. Euh, yeneen feebar sax yeneen xeetu feebar yoo xamante ne mën na dab say doom ëllëg ak ci biir. Mm-hmm. lépp soobee yàlla boo fa demee boo ko defee dinañ la ko mm-hmm. wax. jàngoro sida ak lépp. yooyu yëpp lépp voilà mm. lépp daal boo boo demee defi sa visite prénuptiale dinañ. maanaam balaa ngeen di sëy ngeen ànd ci kër docteur. waaw ñu saytu leen. waaw ñu saytu leen ñu saytu leen mais Tadegen mm-hmm. il a beaucoup insisté sur le stress. Mm-hmm. su fekkee ne da ngay dugg ci biir néegu sëy ak stress. Mm-hmm. ne pour nga concevoir xëy na day métti. ñu nekk ci société boo xamante nag. déjà mariage rek. mën naa wax presque stress la. Mhm. sans pour autant compter lépp li nga xamante ne nit ñi ñu ngi la koy yaakaare yow bu la kenn stressé wul sax. Mhm. yaa ngi stressé sa bopp. Mhm. te en général dañ la naan dafa jaasiir dafa stérile. mais dañuy fàttali te Tata Déguène pour ñu considérer ne couple dafa stérile. foog ngeen def deux ans ferme de mariage. yoo xamante ne deux ans continue yoo xamante ne régulièrement yéen a ngi yéen a ngi sëy ah mais loolu yëpp. ngeen dëkk ba pare di set di set atu yàlla yu mët mm-hmm. su fekkee ne gisuñ si ëmb. Mm-hmm. nga doog a xalaat boobu la ñu ah, waaw voilà léegi boobu moment boobu la ñu war a posé wu mm-hmm. question. waaye ngeen di dëkk te sequ leen. voilà wala boog dëkku leen. voilà wala boog ay ay loo. loolu yëpp ay point la yoo xamante ne ngi ci biir te surtout tamit que avec la jeunesse d'aujourd'hui tata dégg ngeen du ñu bëgg say rek am doom. mais xëy na entourage bi ak mbokk yi du ñu comprendre loolu. yenn saa jigéen dina jël. Euh, euh, euh, décision wu dem defi planification familiale boobu sax beneen du du du voilà mais toujours mais ce sont des aussi des femmes yoo xamante ne dañ leen di dañ leen di xas dañ leen di parce que dañuy foog ne mënuñu am doom mm-hmm. toujours est-il daal jigéen ñi sonn nañ torop ci fànn boobu mm-hmm. te yenn saay nag mu doon góor ñi totobdosis ñu ngi ci néeg bi waaw ñu ngi ci néeg bi génn goo néeg bi tey doo fa génn du ma génn néeg bi tey mm-hmm. mais dama am benn affaire bu may wax rek léegi gis nga scientifique science li mu indi dafay indi firnde certitude. dëgg la loo xam da nga ci teg sa loxo xam ni ci lii moo ko sos. Mhm. lii moo tax mu am. dëgg la te ñun suñu conception africaine parce que man foofu laay waxee tout le temps. ak mhm. yow mhm. moo di au départ. dafa am ñetti point yoonu wax. yoo xam bu ci nekk day nuroog visite prénuptiale dontele bële moo gën a précis. dëgg la tubaab bi moo gën a précis. dëgg la dañu ne. jabar. dañ koy seet. kër dan koy seet. oto wala daamar comme on dit dañ koy seet. dëgg bu ne jabar dañ koy seet mooy koy dugg ku nekk da ngay xam mhm. boo ko dee seet dinañ ki ci bari yëpp yu ci génn mhm. parce que loolu mooy suñu réalité bu ngeen sëyee seen wërsëg dëppaloo na di ngeen am njaboot mhm. wala du ngeen am ko ci ay gaaf saytu ko ci ay gaaf ay yu nekk saytu ko ci ay seetlu ñun loolu mooy suñu déterminant ñun dañoo am ay déterminant yoo xam même si si bu fekkee dafa subjectif c'est-à-dire tegoo ko ci science ci loolu lañ doon sukkandiku pour am jabar ak ami doom et tout ça. Mm-hmm. ñu indi beneen affaire bu nga xam ni. Mm-hmm. wax na ko léegi. consanguinité. Mm-hmm. di nga jël koo xam da ngeen a jege jege bu nga xam ni. du ngeen am doom. dëgg la dafay am dafay am. du fi jeex du fi jeex. wala boog amee doom du wér. du wér day nekk day day nekk koo xam ni sax. day matadi day matadi. dëgg la léegi sëy euh, Zeyna indi. Mm. benn terme bu xam ni boobu ba tey euh, yaa ngi koy wax. Mm. mooy deux ans effectif. deux ans effectif yoo xam ni. da ngeen di dëkk. di jote. comme on ci période yi nga xam ni scientifiquement bu ngeen jotee war ngeen a mën a am ñaari at kay na noo yaakaar ni man ngeen a am plein mais diggante bi Adja dégg mm. góor mën na mat góor mm-hmm. di sëy mm-hmm. te ferñeent yi nekk ci mën mëneewam du ko matul pour mu mën a am doom waaye ndax des koy nangu ci société bi justement xam nga lu tax ah. duñ ko nangu jabar ni la demal nga faju ji ndax seet sa bopp ndax yow mu mënoo am góor mënu koo dégg. waaw mais bëggoon naa bëgg jabar ji dégg ko. mais dugg. waaw mu ñu wax la ci toowu couple yi ñu oo ne demal nga indi ak sa jëkkër ñaata dellu si. ñaata dellu si soo demee sa jëkkër ne la da watt la moo gën nga ma yóbbu. ci docteur xam nga lu ma la yëgal yow mi yaa mënu la waaye man mi. daal yaa te te nga mujj tey nga may naan nañu ànd ci docteur <laughs> sa sa fase xaj na ci sa tuuba ak sa fase ni société bi tëddee ni sa jëkkër demal nan ànd ca mu seet la waaw société bi xaw koo mën a nangu mais déjà góoru Sénégal du bëri lu muy ànd ak jabaram ànd rek ñoom du ñu ànd ak seen jabar góoru Sénégal de manière sa jabar nag di dem toog si sage femme ba pare bu jógee bu jógee sage sax nga laaj ko loo fa jëlee waaw c'est rare tant moom jëlul intention wax et puis dafa am yenn analyse yoo xam ne góoru Sénégal ni ko jigéen nangoo mm-hmm. ci saytu boppam mm-hmm. pour mën a am doom bëriwul mm-hmm. góoru Sénégal yu na mais danga naan danga naan saytu bu sori boobu 99 pour cent. waaw saytu boobu bariwul góor ñu koy def. Ah, maanaam téeméer bi xëy na benn koy def. benn koy def jërëjëf boo demee ni naa seet sama bopp. Mm. ndax man mii mar naa mën a am. Ah. ndax sama ngóor. agg ah. na fu may mën a amee doom. loolu bariwul góor ñu koy def. daw dan lay poñe rek. Ah. dem bay seeti malade ñu génne ko ca biir. ngay faju te ni pàcc. te la ko waxee. Ah. doo ñëw ba wax ko soxna si. doo dégg li ma la ga am fa. Uh-huh. mu xëy suba takki bagage am ndax doo ko fa. ba pare ñoom dañuy defe ni duñu ko déggee dañuy naan duñu góor. te fekk ne amul fekk ne. c'est vrai et c'est tax kenn ñemewu ko ŋaañ. kenn ñemewul jigéen yi bëri nañ leen voilà te tata dégéen dañuy fàtte ne hmm. feebar la feebar la comme feebar yëpp góor dafay feebar jigéen dafay feebar ni ma ko waxee sànq. mais ba waaw mais ñoom mënuñu nangu nit wax la ne da nga feebar jógal dem faju ji non baat boobu sax jógal dem faju ji dérangé wu leen. mais jógal dem faju ji ndax mënuloo am doom. mais effectivité de ñaari at boobu nga xamante ne saytu nañu ba ne. <laughs> su fekkente ne da ngeen dëkk ñaari at plein nga xam ne yéen a ngiy seq te gisu leen ci doom ci ngeen war a commencé jug mais ñaari at effectivement boobu moo raar ci réew mm. ndax su fekkee takk nañ la ñeenteel nga xamante ne kon ñeenteel taxawal ma wax la damay commencé ca ñeente ñëwaguma sa sa taareel suñ la commencé ñeenteel nga xamante ne ah, xëy na non ñàkk nañ ci wéyal ba ngay gis sa jëkkër. écoute non non tout à fait sama lañ dafa ay réalité. nga gis ci ñenn ñoo xam ne du ñu gis seen jëkkër. te ñu ngi lay tuumaal. c'est vrai balaa balaa ngay ñand gileem kay da ngay jot ta bakkan waaye doo gis sa jëkkër soo koy gis tamit raar na raar xam ne xëy na. période ba nga mën a am doom du dëppoo ak temps mm-hmm. donc dafa am ay charge yoo xam ne dañ ko teg ci jigéen moo tax ma ne le stress boobu rek. te du ñu xool cause yi mais li ñuy xëy rek mooy dafa xas bee gaaw. xas bi te baatu jaasir boobu fan la jógee Toto Abdou Aziz ma faaba li ñuy teg ci ndodd jigéen justement man euh, dinaa def benn petite incursion répondre un peu à ta première question. Mm. moo di jigéen bu dul gis jëkkëram. Mm. Mm-hmm. une faute mm-hmm. mm. nga wax sànq ci départ bi yàlla. Mm-hmm. moom nga indi ngëm. bu fekkee ni dëng gëm mhm. tey sartu li nga yàlla sant ci say mhm. waroo toog boobu est sa jabar du la gis mhm. kon ñàkk gis sa jabar ñàkk ko jox cër xam ni am na lu mu am ci yow droit am la nga jox ko ko kooku góor gu fayir la parce que góor ñi quatre-vingt-dix-neuf pour cent li ma la wax li leen jugal di muñal seen ñàkk bañ a am doom mu ko muñal jigéen ci ñàkk bañ a am ah, doom yàgg fi te wér et ça c'est une mm. réalité parce que je l'ai vécu benn ñaareel bi ci des mm. mooy mm. régler problème mu ñaar jabar bu amul doom mm. pour ñoom solution mooy takk ñaareel mm-hmm. c'est la seule solution pour deux raisons mm-hmm. la première raison sociale mooy mm. mag ñi dañ naan la bu fekkee da nga nekk ak sa jabar ab diir amul doom mm. boo takkee jabar boo ca amee doom biir mën naa wujjee li ñu naan biir day fiir day fiir man na am na am et puis am na c'est démontré ñoo pas démontré am ñoo xam dañu bañ a am doom ak seen jëkkër seen jëkkër takk beneen jabar am kooko ëmb rek ñoom ñu man am na. Mm. mais doo ci du loo xam ne mën nga ko teg ci analyse scientifique. Mm. beneen bi ci des rek la ko mooy. Mm. man daal xam nga lu ma la yëgal. sa yaay wax ak yow. kii daal mu ngi ci kër gi. ne na léng rek. naw la naw la nga indi ko fi. ah la war it yaa ngi koy def. Ah, moom bu jaaree ci ne léng bi. mu ngi nii toog loo fi indi rek mu lekk ko la man. waaw kay ne fuuf. ñu ko fuuf ba pare te te. juróomi sax ñi ko. waaw. nii lañ ko waxee nag. je me mets à la place. maintenant maay jigéen. ji wax ak doomam bu góor. dëgg la. jur naa la fi mu la war a jural. waaw patoo làggoo. liggéey nga ba dab sa morom yi ci teraanga. waaw. jar nga takk jabar mu dugal la ci néeg bu baax. man de bu ma xamoon ni lii la tooñaale du ma ci dugg. ndax daal mu ngi nii. soo boo wuti. moom daal moom kii ci kër gee ko tane te kër gi li ci kër gi sax bu ji jotee mu dem tool ñu xëcc takk ko mu ji waaye moom mënu fi daal lekk ak dem ci dus bi doo nga la dëgg la utal pexe sàkkal pexe nag ndax balaa moo wees ci yow. dëgg la am na ci at yoo xam ba tollee dootoo am doom te nit doom. dëgg la bu ëllëgee ñu lay xoolee sa takk ndax. dëgg la lii lii la yaay bi dox doom boobu góor. ci biir kër gi lay waxtaan ak moom. Mm. mu yëngal boppam génn. Mm. mais gis nga nit. pression bi dafa taxaw boppam bi dëgg la gis nga bu wéetee. Mm. bay def góoran. bu wéetee bay def analyse. day dem ba léeg-léegi. mu dendalee li nga ko wax ak gëm. ak lu mën a nekk. muy commencé di def naan soxna si. muy commencé. tëdd bi sax mën naa dindi parce que effort la boo xam ne amul mujj. Mm. comme moom activité physique lan ko def tëdd bi. Mm, mm, parce que loolu moo gën a dangereux. mooy def ko activité physique. maanaam fit na judd. fit na judd. bësal sa baaram bësu ba. foog génnagoo néeg bi ba suba waxtu bi dab nañu. comprendre ma waaye ba suba. waaw <laughs> ah! non parce que sa papa fii waxee. non j'ai pas bien compris maa ngi jéem a analyser mais j'ai pas vraiment compris xanaa tàggu téléspectateur. si tàggool tàggool jeune couple ba suba. non sa papa niveau bi muy waxee nee naa ko mooy sama. mooy sama kii. Euh, euh, suba euh, daal j'espère que dina ma gën a expliquer comme ça ma comprendre à demain s'il fait tard <laughs> mais jërëjëf Adja dégg ngeen Zeyna jërëjëf. Mm. di kontaan di wax rek nii.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 tabaga foofa Fofana sekk moom tamit doomi ndeyam kontaan nañu yal yàlla fayal ñu leen ba suba incha allah